ginnaaw amagul lu koy ñu faagaru toog kër yaru feebar bi feebar bu doy waar feebar buy law bay teq ñëpp la ci joxalante bi ci nuyoo bi ci àndandoo bi ak lépp liñ ciy wax nag mooy dafa am ko si deb lu mu wax du jaare ci man euh, toog sa kër jànge sa kër mucc ci corona loolu mooy li nga xam ne yaakaar naa ni mooy tënk wax ji ah nun nag waajur yi dañu war a wax ak njaboot gi parce que ku ne xam na ni waajur du tibb mukk tibb tàng teg ko ci yoxoy doomam bon waajur yi sim ba sañoon doomam moo koy mujj a àddina kon feebar boo xam ne dafa law ba teq réew mi teq bitim réew du ñu mën a def lu dul tegtal yi nga xam ni moom la euh, ñiy toppatoo wér-gu-yaram wax ak ñaanu ñu baax ñi bu boobaa ñu kii dañuy gërëm ñëpp sant ñëpp di leen wax ni nag na xel yi dal na xel yi dal damay fàttali rek ki nga xam ne mooy Assane Sylla nii nga la waay bu la cooloo tegu ba tax nga jàq mu ñël day wéy amul dara lu fi sax doole fasu naar góor taaru jongoma jëmu kilifa gu mag lépp day ruus li fi sax daal mooy jëf ju rafet sell ni wurus boo dëddoo muy jolli sa ginnaaw nu wesar te foo jëm mu jiitu la fa la xaar li am nag mooy ñu ànd ak yar ak teggin déglu bopp bi barkeel dañ ci saxal nopp yu dégg am naa yaakaar ci ni nun ñii nit nit ñi mànkoo réew mi mànkoo ni muy njiitu réew mi muy ñi nga xam ni ñoo ànd ak moom ak nun ñii nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu lépp luy suuxat askan wi yaakaar naa ne euh, ci diir bu gàtt dinañ dem ba di ko fàttaliku ñaan yàlla nag mu ay xéewal topp ci ñu ñu ñu ñu jëriñu ci ñun ñëpp loolu laa amoon di leen gërëm di leen sant. Par l'éducation pour vaincre le Covid,